asalaamaaleykum euh, askanu Kayar asalaamaaleykum askanu Sénégal euh, man la Galoka euh, nekk vice coordinateur coalition bi nga xamante ne moom mooy coalition ànd nawle te maire Maguette Sène di maire Malicounda jiite ko te yàlla dogal ñu investir bi ki nga xamante ni mooy doon Kayar di adjoint premier adjoint maire Mamadou Ba tey jii ñëwoon te fii nga xamante ni mooy plateau Kayar 2024 pour waxtaan li nga xamante ni mooy suñu programme ak li nga xamante ni mooy suñu ambition ci réew mi ak suñu ambition ci doxalinu bi euh, nga xamante ni moom la ñu bëgg ci pour Sénégal donc loolu mooy euh, présentation bi euh, tey ñu ngi fi ñëw tey pour waxtaan ak askanu Kayar ku ne xam wax élection législative xam ne élection yu am solo la dafa bokk ci élection yi nga xamante ni moom la sénégalais yi war a tànn ay nit ñoo xamante ni ñooy dem ca pencum ndaw réew mi pour mën a représenter seeni gox mu représenter seeni dëkk ndax assemblée nationale ku ne xam na ni lépp loo xamante ne day doxal Sénégal euh, ñi fay nekk di ay ndaw foofu lañ koy tab ñoo koy ñoo koy voté ñoom ñoo koy liggéey pour Sénégal mënoon jëm ci kanam yàlla dogal nag euh, ñu gi ren ñu ngi dugg ci suñu quinzième seen ah yalla def ñu am candidat bo xamanteni candidat wala bo xamanteni mu ngi tuddu magge sen nek maire Malicounda ku xam magge sen xam ni euh, maire la bo xamanteni réalisation yu am solo la def fi nga xamante ni moom mooy euh, dëkkam mu xam ni Kayar dëkk la bo xamanteni ni bu am enjeu la ci walu politique ci walu économie ci walu leneen ak leneen xam ni Kayar dafa bok ci pôle yi nga xamanteni ni bu wax développement économique Euh, région bi bu ñu wax développement économique ci réew mi kenn mënul tudd dëkk te bàyyi Kayar moo tax mu xalaat jàpp ne Kayar tey doomam wala ndawam war na war nañ ko mën a investir pour mu bokk ci liste yi nga xamante ne moom mooy liste euh, ñu fal ko léegi ci département bi pour mu mën a taxaw taxawal département bi waaye mën a taxaw taxawal région de Thiès bi moo tax mu xool ki nga xamante ne mooy premier adjoint maire bi moom Mamadou Ba euh, fal ko dugal ko ci liste bi investir ko ci département bi pour ñu mun a mën koo jàppale mu gagné li nga xamante ne mooy département Thiès bi ah yàlla dogal nag Kayar euh, ñu ngi doon xaar man sama gis-gis personnel dama ne Kayar ñu ngi doon xaar tey li magasin def tey mairie Kayar def ko Kayar bu ñu ne Kayar dañu jàpp ni Kayar tey ëllëgu Sénégal lépp ci loxo Kayar la war a nekk parce que Kayar yàlla dafa def secteur yi nga xamante ni moom mooy dundal réew mi lépp ngi ci. biir commune de Kayar parce que réew mi li koy doxal mbéy la napp la ak càmm bu ñu nee mbéy am na Kayar napp am na fi càmm am na fi léegi nag am leneen loo xamante ni dafa judduwaat ci biir Kayar muy pétrole ak gaz pétrole bi nga xamante ni ak gaz bi nga xamante ni moom moo feeñ Kayar experts yi wax nañu buñ koy exploité tey Sénégal yëpp war na ci war a mun a gis boppam suñuy doom ba suñuy sët war nañ ci war a mën a gis seen bopp fekke nak lolu dafa am kaya ñu tuddé ko teranga ak yaakaar parce que la fa dafa am solo bu fekke lu mel lolu mu ngi feeñ kayaar bu fekke ay impact day am muy lo xamanteni day day day juddu manam mu nek ay impact yu négatif mu wara dal kayaar tay bala kenn di lolu ñu wa kayaar la ñëk lolu kon mu jaadu na tey yi seen liste bop dugal ci ay doomi Kayar dugal ci ay doomu département bi pour au moins Kayar mën a am ay député yoo xam ne dañuy taxaw assemblée nationale pour mën a xeexal Kayar mais malheureusement gis bi amuñu ko vision beneen bi ci topp parti bi nga xamante ni moom mooy parti Pastef def fi liggéey bu am solo ñu leen di féliciter ci élection présidentielle yi jàll ci battre campagne gagné ki nga xamante mooy commune de Kayar ñu ngi doon xaar ci ñoom euh, au moins benn doomu Kayar bi li nga xamante ne moom mooy liste. Euh, ci ci ci ci ci élection député yi mais malheureusement amuñu loolu donc bu yàlla bu bu yàlla dogalee ñu am koo xamante ni Maguette Sène la gis Mamadou Ba gis taxawaayam ci Kayar gis gis-gisam ci kayaar gis ambition bim am ci Kayar mu mu ni da koy jël investir ko laa yaakaar naa ni loolu chance su Kayar te ñu wax ko ñu bañ koo wax nañu bàyyi naxey naxey bàyyi mooy Kayar boobu daj benn doomu Kayar lañ fi investir muy Mamadou Ba donc bu fekkee moom lañ fi investir waa Kayar yëpp dañoo war a jug taxaw jàppale ko tey Kayar yëpp ñu war a ranger wu taxaw pour jàppale ko parce que buñ ko jàppalee jàppale wuñu la personne mais commune de Kayar la ñuy jàppale te li may faral di wax li ngay jug fii di dem di jàppale beneen doomu jàmbur bu dëkk Thiès wala bu dëkk Dakar bu dëkk feneen jàppale sa doomu dëkk da koo gën parce que problème yi ngay dund kii dëkk ci dëkk bi moo ko mën a xam donc motax tax kayaar bu ñu xamee ko xamé ak bu xamul momu du batay chance la doomu kayaar ñu bolé ko ci liste bi motax dañuy wo ñepp ñu japp ci ñepp ñëw jappalé ko euh, Mamadou Ba barak ba dëgg fi yalla yaakaar naa ne bay na waaram ci kayaar parce que képp koo xamante ni war nga taxaw fii ci kayaar taxaw na gunge la jàppale la li nga xamante ni mooy euh, li mu di opérateur économique xale bu ndaw la mais mu ngi investir pour kayaar mu ngi jël ay doomu kaar di leen dugal ci ay usine mu ñuy liggéey mu ngi jàppale baykat yi mu ngi jàppale jigéen yi mu ngi jàppale di dugal ay financement ci biir jigéen kon kooku jàmbaar la bu ko neexoon toog tëdd nelaw def ni moromam def mais deful loolu bëgg kaar moom moo tax tey lépp lu mu am bokk na ko waa kaar kon kooku bu soxlaa yaakaar naa ne kaar moo soxla bu soxlaa ñëpp lañ ko war a jàppale te ku ne xam ne ne Mamadou Ba ambition bi mu am pour kaar te yàgg naa jóg di xeexal kaar depuis Ndiassaka ba monsieur le maire bi nga xamante ni moom moo fi nekk mu nekk sëriñam nekk nekk kilifaam nekk léppam kon moom dañuy jëkk a tàllal loxo mu ñaaral mais mu jàppale ko parce que loolu mooy yoon loolu dañuy invité ñëpp ñu ñu ñu ñëw jàpp ci amalgam nag day am dañuy naan waaw dañuy jàppale nangam ak yooyu dafa bari mais dañuy bëgg xamal nit ñi lenn rek lu bariwul ci nga xamante ni ñoom lañ moom la ñuy jàppale mooy Barthélémy Dias nee nañu liste coalition même bu doonee coalition Barthélémy Dias kayitam lañ indi fii pour département Thiès mais dama leen di que Barthélémy kilifa boo xamante ne ci télé yi ak rajo yi saaga nday ci ñaaw kooku est-ce que war na nekk na référence kooku war na ñëw jël suñuy carte du ko jox non loolu d'accord ma ci Barthélémy Dias mosul teg tànkam Kayar xamul jafe-jafe Kayar mosul ñëw Kayar kon votel ko sànni sa carte la Pastef ba dëgg fi yàlla ñu ngi doon xaar bi jox gëdd Kayar parce que Pastef Kayar da ko liggéey liggéey bu am solo mais malheureusement defuñu loolu nit ñi nag affaire de patriotisme moo leen di yóbbu man fii laa bokk fii laa bokk mais Kayar bu soxlaa man sama philosophie moo la ku soxla da war a xaar parce que Kayar avant tout Kayar moo soxla Kayar moo jëm ci ay euh, ci ci ci jamono joo xamante ni Kayar day soxla ay doomu ñu ko taxaw ci assemblée nationale pétrole ak gaz bii dinaa ci ñëw dafa am solo barki démb monsieur le maire dafa fii forum ñuy wax pétrole man bokk naa ci ñu ngi bokkoon ci ma organisation bi mais lu toll ni forum ak gaz ñu koy wax fii ci Kayar daf ci lël ay experts ñëw ñu invité ci ministre yi nga xamante ni ñoom ñoo siq affaire muy ministre de la pêche ministre de l'environnement ministre des mines invité ci président invité euh, invité ci gouverneur invité ci préfet mais benn autorité bu fa tàngam ñëpp dañoo yónni loolu lu muy lu muy lu muy jàngal mooy suñu autorité yi joxe nañu joxe gëdd Kayar joxuñu gëdd Kayar respecté wuñu Kayar loolu nag waa Kayar ñoo ko xeexal seen bopp ku mën a organiser forum invité kenn ñëw fi kooku mën na toog assemblée li muy décider ci pétrole bi ak mais bu amee doomu Kayar bu fa nekk Mamadou Ba nekk assemblée nationale bu ñuy def loolu au moins Mamadou Ba dina taxaw taxawal waa Kayar wax la waa parce que nag maire dëgg fi yàlla ay jàmbaar la ñu mais seen baat mënut a sori seen baat mënul sori mais ki nekk assemblée di dajeeg ay ministre di dajeeg ay député di dajeeg président. kooku li baatam fu mu mën a yegg keneen mënu faa yegg beneen bi ci topp mooy euh, li nga xamante ni moom mooy député yàlla dafa dogal Masak ñëw fi nekk fi député lépp lu koy am ci ginnaaw Masak lañ amee sunu bàyyi Ndiassé Ka mu nekk fi ñu investir ko député tey ba ci jamono yi ñuy tollee nii programme bi Kayar di doxee ci jamono Ndiassé Ka moo ko liggéey te li ko ko may mooy nekk bi mu nekk député moo tax tey. kayaate yi war a profité pour amaat député ngir ñu mën a yóotuwaat leneen parce que nag assemblée foofu la ñuy séddale fi ñuy séddalee nag boo amul sa doomu dëkk bu naa doo doo kon loolu nañ ko def ci bopp ci ñi bu ñu nax nit ngeen xamal waa Kayar yëpp la ñuy xamal képp ku votel beneen liste bu dul yaa ngi sànni sa carte yaa ngi votel koo xamante ni mu ngi ci àll ba kon Mamadou Ba Kayar yëpp ñoo ko war a taxaw soutenir ko xam ne bu jàllee jàllalul boppam mais Kayar lay représenté dama ne Maguette Sène bu ñu gën a gore Maguette Sène Malicounda la dëkk bu mënee toog fële di xeex pour Mamadou Ba nekk député kon ñun waa Kayar Maguette Sène waruñoo gore waa Kër Moussa ñu ngi xeex pour Ba nekk député waa Noto ñu ngi xeex pour Mamadou Ba nekk député waa waa Thiès ñun dañu ree dem réunion ak euh, waa département bi mais ñu dañoo am yaakaar ci Mamadou Ba di def la tout pour ñu gagné département bi Mamadou Ba nekk nekk nekk député comme waa Pout ñoo mun loolu waa ñeneen ñoo ko mën mais ah saxuma Kayar kon doomu Kayar moo doomu Kayar mooy tàllal waa Kayar loxo ñu ngi tàllal waa Kayar yëpp loxo di tàllal ñëpp loxo di leen wax ne na ñëw jàpp ci yëf yi Kayar moo soxla bu Kayar soxlaa nag lépp lu ñu jàpp lañ ko war a bàyyi ñëw soutenir doomu Kayar ñun ñëpp ci ay parti lañ bokk dañoo bàyyi suñuy parti pour ñëw soutenir doomu Kayar parce que ñun jàpp nañu Kayar ëllëgu Sénégal Kayar da cee bokk Kayar day contribuer ci développement Sénégal kon jaaduwul législature bii di jàll te doomu Kayar bokk ci moo tax bu ñu investir le Modou baax ñu bàyyi suñu yitte yépp ñëw pour jàppale ko pour ñu investir ñu ngi ci sàkku ñaan imam yeeg chef de quartier yeeg suñu jeunes ñu leen di woo di wax ni Mamadou Ba bu demee assemblée nationale Kayar dina am représentant dina am ndaw boo xamante ni mën na ndaw te yaakaar naa ne am na bi am compétence bi te bëgg na dëkk donc foofu lañ leen di invité ñun ñëpp ñu ànduloo jàppale ko pour li nga xamante ni le soir du 15 17 novembre ñu ànd nawle mën a gagné ko. baax a baax fi nga xamante ni moom mooy commune de Kayar ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen woo si yéen ñëpp ngir ñëw jàpp ci suñu coalition bi nag ànd na la tudd suñu kayit dafa bleu blanc la te nag bi nekk ci donc dinañ ko wax ñëpp incha allah caravane bi dinañ ko démarré euh, li ma bëggoon a revenir tuuti rek présenté leen li nga xamante ne moom mooy mooy bureau électoral bi nga xamante ne moom la ñu moom la ñu samp Euh, Mamadou Ba moom moo nekk coordonnateur bi man Gallo maay vice bi secrétaire général bi euh, Ndiassé Mbengere la trésorier bi euh, Mami Tall ak ak Aba Aba Sall comité électoral bi suñu ndaw ñi nga xamante ni moom lañu ñu àndal ñoom ñoo ko jiite di ci def liggéey bu am solo mooy Moussa Fall ak Idi dëkk Kër Abdou Ndoye comité organisation bi Papa Nguer nekk fa communication nag euh, ñu ay xale yu am taxawaay ñoom ñoo fa nekk ñoom Khadim Dia ñoom sëñ Moussa ak ñi nga xamante ni euh, mooy le grand dame nekk fa ñun tamit ñuy liggéey liggéey bu am solo donc ñooñu ñooy bureau bi nga xamante ni ñoo nàkk liggéey bi te incha allah suba la ñuy démarrer suñu programme am nañu caravane bu rëy bu ñu war a def ci commune bi beneen bi ci topp mooy monsieur le maire Mamadou Ba dañ ko tuddee final waa Mbawane le 6 ñu war a def tamit suñu ouverture meeting le 2 à Ndiokhop. Euh, Sidi Diakhat tamit di promoteur bu mag tuddee ko làmb fii ci Kayar 10 donc loolu bokk ajouté na si suñu agenda yi nga xam ne moom la ñu war a liggéey donc ñu ngi leen di jox di daje incha allah ci yeneen i jotaay merci beaucoup.